bi may taxawal timis ak euh, dimanche 19 bi ma kabaree la doomam mu nuyoo sama kër maman Aïcha bi génn àddina nuyoo sama kër ne sama sët bi dama bëgg nga gunge ma damay jëndi soow sama benn doom ne ko bàyyil ma yóbbal te leen wéev ñu génn dem bi ma jullee ba pare ñoom ci la génn dem su ma juumul 19 heures 49 la ñu génn sama kër maman Aïcha moo jóge seen kër ñu ñëw suma kër ñu ànd dem quelque temps après xaw ma temps du mu toll su ma juumul daal peut-être vingt une heures wala vingt heures yooyu xamatuma heure bi sama sët bi dellu si bi mu dellusee fekk man maa ngi seetaan journal mu dem ci benn tantam ne ko man de mama Aïcha la àndaloon mais dañu réeroo gisatuma ko suma dom bobu ne ko bàyyil waxi dof yi ngay wax ah bi ñu toogee toog ba ay defe naa ci mu xawa a guddi tuti xali genn di ko seet ba ñu di ko dem seen kër ñu ngi fekkee yaayam ci buntu kër bi yaayu mama Aïcha mu yor ben cravache muy wax nit ñi ne leen te li may wax see nañ ko mën nañ ko vérifier ah ci koñ bi muy wax nit ñi dem leen bu leen ko seet parce que xam naa sama doom bu ngeen ko seetee sa day tiit du ñëw donc ñoom jàpp ñu woon au sérieux ne peut-être elle avait disparu sa papa maman donc noonu la waa koñ bi mobilisé wu man samay doom nelawuñu ba bët set ñu ànd ak monsieur Ndong di wër xale bi c'est ce qui s'est passé ñoom ci biir laaj bi dem nañu ba ne xale bi bu mu waxee ne bi mu jëkkee wax ne biñ ko jëkkee jëkkee laaj na ndax gis nga maman Aïcha daf ne ñu woon ñu laajaat ko mu ne dañu àndoon moom dafa demoon retiré ji bee moom mu ne day day jëndi soow foofu lañ tax je suis désolé dégg naa monsieur Ndong li mu wax mais je suis désolé euh, histoire bu dara xisee ba am na dañu wax la vérité su Ndong sama kër la ñëw ane ama jigéen mu nekk sët bi. bi àndoon ak Aïcha. mu ne ko Aïcha yéen a àndoon mu nekk ko waa ñoo àndoon dem jëndi soow bi ñu retourné jëm dem jëm sa wéef bi bi ñu ñëwee ba ci yoon bi boo ñëwee boo xamee misira après que Rahman Diagne dafa am benn nga continuer kër ñaa transitaire ñoom ñu werante ñoom ñaar. kii ne nañ jaar fii ki ne nañ jaar fii finalement mbedd bi nga xamante ne dem ji moom la choisir mu ànd ak suma sët bi ñu dem ci mbedd boobu jëm kër ñaa bi ñuy même bi ñuy werante am na xale bu góor bu leen romb dugg seen kër la police l'a bi noonu la leen ko waxee foofu laa leen romb ñu taxaw ma dugg suma kër sama sët bi nag nee na moom bi mu yéegee escalier yi la gestu gisatu ko mu ñëw wax ko loolu la tontu monsieur Ndong sama kër maa ngi si biir kër gi mu ne ba ñu ñëwee ba ci booru buntu kër bi wala ba booru fi ñuy wax kër ñaa ah, fa la ñu taxal bi ñu ñëwee ba kër ñaa ah, xam am na genre escalier voilà sama sët bi ne moom bi mu yéegee escalier bi ba jeexal ko la gestu gisatu ko loolu la wax mu xaw a doy waar si ñëpp dëkk franchement ñu xaw lu doy waar mm-hmm. xaw ma nag nan la demee moom aussi nee na mu wëlbati ko xool ko foofu gisu ko ci la jaar ci benn xaritam seen benn xarit mu nekk man diw laa àndaloon mais dañ ñëw fa de gisatuma ko. ñëwul seen kër wax ko fa yow. ñëw moom ñëwul sa kër wax ko fa ne dama àndoon ak diw ma jékki si ñëw na fa elle a déggoo ma ne dafa dem ci tantam wax ko ko tantam ne ko bàyyi si waxi dof yooyu nan ngay ànd ak nit nga jékki-jékki gisatoo ko après demul kër kër xaritam bi yeggaleen ko ñoom tamit xamal leen ne dama àndoon ak diw gisuma beneen kër xar seen beneen kër xarit la dem wax ko loolu donc nag bi coow luy jógee bi papaam ñëw expliqué laaj ko mu expliqué ko mais ñoom premier temps bi gëmuñu woon ne seen doom dafa disparaître parce que yaay ji mu ngi naan sama doom xam naa ko fu mu ne moo tee boppam mais naya moy yi def nañu nga xam kan bi yëpp ànd nañu ak ñom ben bi ñuy découvrir corps bi. non avant ñu découvrir corps bi. hier nuit waa kër monsieur Ndong ci sen bop vers minuit et quelques sont venus m'attaquer. nee ñun ñoo ray sen dom té bobu découvrir ñu corps bi donc ñom xam nañu sen dom déna té découvrir ñu corps bi démb vers minuit. aider bi fofu la ñew na ñun ñoo ray seen doom kon na comme seen doom dee na ñun suñu doom dina dee man ak yow loo xam lo ne yaa dañu ray suñu dañ ray seen doom dafa dee. alors que feeñagul. alors que feeñagul man ma jël sama téléphone j'ai appelé monsieur Ndong trois fois mu doora jël man ak monsieur Ndong li warul ci suñu digënté on est de très bons voisins sama dom nga yak sama domay ay sama dom en ce moment là. hier avant ñu suñu attaqué sama doom mu ngi woon këram jóge Dakar ñëw pour compatir toog ak moom. lu tax ñu jox ak ñoo xam mais nous ont attaqué xale bi dee na ñu war leen attaqué je ne parce que xale bi ñoo ànd ñoom ñaar man sama sët bi mosul dem kër monsieur Ndog doomam mooy ñëw seet si sama sët mosu fa dem moom doomam mooy ñëw di ko seet

man julit la mënu ko yéene nit tout ce que nous demandons moi, nañu def enquête bi que en l'enquête naka déterminer kan moo ko rey. gis nañu sànq nga xew ci bi police bi lan ngeen lan mooy seen tànk. donc son tànk mooy sama sët bi mineur donc moi j'ai pas voulu que nous entendre que sans l'assistance d'un avocat. mais la police convoqué ko di entendre. Euh, non parce que nous lañ ñu police man maa ko doon assister mais liñ ko doon laaj mooy itinéraire yi ñu doon def fan la ñu jaar. est-ce que dañu porté dañu porté plainte. non eh, non non ils n'ont pas porté plainte justement mais nag comme y a meurtre police foog mu def liggéeyam foog mu xam xale bi kan moo ko rey. maanaam xale bi ndax li mu àndoon ak moom moo tax mu bokk ci procédure bi. su ma wax mu bokk ci mais bu ñu ànd loolu du ci bokk. gis nañu sànq ngeen woo avocat mu ñëw est-ce que loolu day continuer ak euh, assistance bi nga xam ne moom lañ soxla. mais bien sûr que daf koy continuer. baal ma déplacé wu ñu tuuti rek par rapport ak bien sûr que daf koy continuer. léegi yéen lan ngeen di sàkk ci lii xew yi. non li ñuy sàkk mooy na na yoon def liggéeyam ñi def ñaawteef bii nañu feeñ parce que man am naa yaqin ne sama sët taxu ci li tax taxu ci mooy koñ ba ñu dëkk police na def enquête yow bu la neexee en tant que journaliste ñoo nga def enquête man sama doom kenn du ko gis ci mbedd mi timis loolu moom ku leen neex nga laaj ci koñ bi sama doom kenn du ko gis mbedd ci timis rawatina ab waxatuma nag ab sët bu vacance jotul samay doom vingt deux heures dañuy tëdd ci vacances yi laa leen may ba vingt trois heures ku mu neex demal sa koñ ba nga laaj waaye yéen daal tuuma bi daal jaaxalu leen non xaw ma lu xew mais li mu wóor mooy sama sët bi taxewu ci laalewu ci c'est ça la vérité